Elhadj dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu ñu daal koy door ak laas yéenekaay yi diñu xamal ne tabaski gii nga xam ne daal nag dañoo amee nañ ci dëkk yu fasantikoo daal dem ngir daal koy màggal ci seen ak dëkk laa tibin yéenekaay yi xamal ne mbir ma kay noonu la demee te corona ji tasaaroo gumu tasaaroo ci tabaski ji bokk na ci li nga xam ne moo ko waral le quotidien yéen kaay mbir ma kay mooy bëgg ëppi loxo ndax kay jamono ji covid ji dafa mel ni da koo laaj yéen kaay gi duñu xamal ne xoolal moom njiitu réew mi kay ci tàmbali gi daal dafa jëloon yëf yi daal di koy taral daal di jël askanu Sénégal décrété état d'urgence waaye tamit lii nga xam ne rek moo di couvre-feu ba askanu Sénégal tiit lool ci jàngoro covid 19 gi ñu dem jàngoro ji gën a tasaaroo mu mel ni nag jamono ji mbir ya dañu koo gën a woyefal ñu ne nag dañu koo yëkkatiwaat sénégalais yi dafa mel nag mbir yi dañ koo gën a bu ñu ko ñàkkale fayda itam ma ngay def ay musiba ndax ci ñaari semaine lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay cas yoo xam ne wàññi nañ ko ci ñaari ay bés professeur Seydi di ñu xamal ne jàngoro covid 19 la ca doy waar jamono yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal yéenekaay gi duñu xamal ne moom kay jamono ji gannaaw dogal yi nga xam ne rek jotoon nañu koo jël ngir aaye yëngu-yëngu yi nga xam ne moom la maanaam daal soirée jamono ji ay jafe-jafe yu metti la jural ñi nga ne rek ñoo di artiste Le jamono ji nag nga xam ne rek jotoon na koo yëkkati ne dañoo aaye maanaam sangu ba jamono ji ma nga fees del box populi yéenekaay diñu xamal seen bopp ndax feetu 15 août yi nga xam ne rek moom la ñu moom kay jamono ji la ñuy sàkko ci chrétien yi moo di ñu daal toog ci seen kër maanaam daal amul mees amul dara a jaral le maanaam nañu ji ñu ko dakkal nee na nag ma nga ci ginnaawam grand place yéen kaay ñu xamal ne bés bi nga xam ne rek moom lañu jagleeloon lu jëm ci wàllu ko jëmbat garab màggal nañu ko Sénégal màggal na guy njiitu réew mi président de la république Macky wone na yoon wa ca jëmbatum garab réew mi yéene kaay diñu xamal ne moom njiitu réew mi Macky ko waxal wax ji moom ñàkk nga nangu ne nag di nga garab l'info yéene kaay xamal ne mbir ma nag noonu la demee bu dee nag ca kaw la ndànga gouverneur ba kay di ko xamal moom njiitu réew mi Macky Sall jamono ji Wélingara ca conseil départemental ba lu tollu ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay millions yoo xam ne jamono ji dañoo jàpp ne dañu koo luubal loolee kay jamono ji moo andi coow yi mu na ne du ko delloo exclusif yéenekaay dinu xamal ne bu ñu noppee ci loolee nañu wax kay yenn ci ay njiiti réew yi nga xam ne ñoo nekkee ci Afrique tey nag jamono ji ñetteelu mandat nañ lool bu doon jàngoro covid 19 gi am na ñaar ñoo xam ne ci bëgg ñetteelu mandat a kaay dinu xamal ne maire bu ngàcci naw de nee ma yaay Fatou Diagne gën nañ ko takk gur gis maanaam takku VIP gannaaw ba mu jaaree ci loxo Ahmed Khalifa Niass ak Serigne Boub jamono ji nag am na ñetteelu borom këram eh loolu moom bettul kenn yaay Fatou Diagne El Hadji Ousseynou Ndiaye